mel ne tux bokk na ci nga xam ne day joxe cancer boobu nga xam ne xamaguñu daanaka lu koy faj bu wér la ne moom dana koy joxe ak yeneen jàngoro yi jàngoro yu bokkut ak yàq gañ ci yàq alal ak ne lislaam fonki alal bañ ko ko yàq kon boroom xam-xam yu mujj yi daanaka xaw nañoo maase ci araamal tux moo xam tux mu woyof mi la ni ki cigarette mi wala tux mu mag maam ak ni ki yàmbaag yemel ne moom dañ cay boole itam lépp luy xeetu dorog mën a yàq am xel mën a yàq nit rek dañ koy araamal te di ca àtte àtte yu diis a diis dañuy àgg sax ci wax naa lu mel ne kafeek ataaya ak xeeti naan yooyu nga xam ne jëmm ja dagan na mën na am lu tax ñu araamal ko aaye ko niki bu ko kooko naanee faatu mbaa bu ko naanee awee ci wéradi goo xam day yàq aw yaramam mbaa bu ko naanee mu yàq am xelam wala boog ca nañ koy naane jaxasoog góor ak jigéen bu wërta am da cay am yooyu day tax jëmmi kafe ga wala attaay ja ak yu mel noonu araamutoon waaye loolee ca feeñ tax ñu araamal ko aaye ko diine dafa ñëw ngir sàmm bakkan yi sàmm xel yi sàmm yaram yi sàmm alal yi lu ñu gis nag mu yàq yooyu rekk ñu daldi àtte aaye ko bu nu delloo ci jamaad jamaad dañoo waxoon ne bu dee ci fiq mooy loo xam ne lu yàlla sàkk la amul ruu te it bàyyi ko wut ci lu am ruu yooyu nag dañoo bari lool lool ñu ne woon loo ci xam ne du màndal rekk dañuy jàpp ne lu laab la loolu tax na boo liggéey ci xeeti machine yi muy oto muy leneen essence baag gasoil beeg huile beeg lépp looy jëfandikoo ci yooyu rek laab na bu la taqee mën nga koo julliwaale dara nekku ca doo kuy liggéey ci dénk yi wala weñ yi itam yépp noonu la xeeti kolyeet yépp laab nañu waaye nag da ca mat a seetlu mooy bu la taqee taq goo xam ne boo sottee ndox ndox ma du jàll ca deru yaram wa faw war ngaa dindi loola booy jàpp wala ngay sangu farata wala ngay dindi fu sobe nekk ci sa yaram ni ki booy dem ca wana wa dem naa dem ba bu dee kuy bind sax am lu muy fare mbind ma te mu am doole ba fu mu taq ci yaram wi deetee ndox ma du jàll faw war na koy dindi bu dee bëgg a jàpp mbaa muy bëgg a sangu farata mbaa sobe taq fa te mu bëgg a dindi sobe sa emaay noonu la mel emaay jëmm ji laab na waaye li tax jigéen war koo moytu mooy su xësee emaayu emaay bi day téye ndox mi du jàll ci wewa te kon dana sañ balaa jàpp mbaa balaa sangu farata def emaay bi waaye bu waree jàpp rek mbaa mu war a sangu farata faaw mu war koo dindi yu mel noonu yépp bu ñu nee laab na itam bu taqee ci yaram wi te kooka war a jàpp mbaa mu war a sangu farata mbaa mu war a dindi sobe te loolee nar a dox diggante ndox meeg deru yaram woo mbaa wewa faaw ñu war koo dindi kon boo delloo takk ne lépp lu yàlla sàkk rek te defu ci ak roo ba tey bàyyi koo wut ci lu am roo rek te du màndal xamal ne lu laab la nga xam ne bu soppee ndox walla ndox ma wal romb ko itam dara la soppi ndox ma lu laab rekk la ñu seet nag bu fekkee doomi aadama mëntoon a moytu ba loolee du soppi ndox ma kon bu soppee ndox ma itam du ca wàññi dara mën na caa jaamu yàlla na mu ko bëggee bu fekkee mëne son na koo moytu nag loolee soppi ndox ma nag kon dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla mboolem matière yi nga xam ne moom la yàlla liggéeyaale ci suuf si dañu bari lool ki xorom mi nga xam ak xeeti xor yeeg weñ gu ñuul ak yooyu yëpp lu ci soppi ndox rek ci kaw ndox mi daa bàyyi ko ca suuf fa loola nekk wala mu wal romb ko ba ci xeeti gàncax yi ku ci neex xet wala mu wex xaat ndox mi wal rek romb ko wala ndox mi taafam nekk yooyu yëpp du yàq dara ca ndox ma waaye ci misaal nag li wala fii def boo demee dagg li ñu wax ceeb ceeb boo ko wutee def ko ci sa ndox ndax bëgg mu neex xet dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla waaye bu fekkoon ndox mi wal fekk ceeb ca déeba ceeb la soppi ko du ca wàññi dara wa fadlatul makruhi ak ndesiital lañu sib wala muharrami ak lañu araamal fadlatu ndesiit mooy rek la génn ca saw wala neefara xeeti xayta yooyu lii waxan nañu ko ci gannaaw ban ca tolloo lu yàlla araamal ku ko lekk mbaa yàlla sib ku ko lekk am sawam ak xaytaam sobe la ni ki fasak baxlaak mbaam ak luy siba lekk mel ni muus ak lépp luy fàdd leneen di ko lekk rek luy siba lekk la ci yoonu Maalik moog lu araama yam saw maa xayta ya sobe lay doon bu mislu saa kem lii la jàllaalatum jàllaala wal aadami ak xaytay doomi aadama wala sawam jàllaala mooy bépp ndundat buy jëfandikoo sobe dañu ne woon lu yàlla daganal ku ko lekk te du jëfandikoo sobe sawam ak xaytaam laab na mu lay takkal ne la nag lépp loo xam ne yoon nangu na ku ko lekk waaye day jëfandikoo sobe rek moo xam da koy lekk moo xam da koy naan ne ki ganaar am sawam sobe la ay xaytaam sobe la ndegam nañ koy bàyyi muy dem suñ ko yeewee nag mbaa ñu tëj ko di ko xonte ak di ko wëgge lu laab nag kon saw ma xayta yi lépp laab na doomi aadama it am sawam ak xaytaam yépp sobe la saw daa ak lumbu am xayal it lañu waxoon ne laab na waaye lumbu xeeti lumb yi moom sobe la wa waddiyun ak waddiyu waddiyu ndox la mu weex moo xam ne day far boole ja su fekkee ne kooka dafa amee ab sedd mbaa mu tawatoon ba di door a tane yaram wi manki deret mën naa am bu demee bay saw ba saw mooy bëgg a jeex mbaa sax mu saw ba noppi ba toog bay jàpp ndox mu weex moom te far daal di génn moom nag sobe la aw damun wala deret mas fooxun juddi juñ fis deret dañu fis sobe la mooy deret ji nga xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee walwali bàyyi ko fu nekk ci yaram wi wala bu yaram wi gaañoo rek mu daldi tàmbalee sottiku wala sax dereti mbërëg wala dereti wasin wala dereti opéré buñ ko opéré wala ñuy fees rek gis deret jekki-jekki di sottiku yooyu yëpp dereti sobe lañ deret ji nga xam ne moo laab te nga weesu woon ko mooy ji nga xam ne dañoo dagg ak sa diit tax mu nàcc wala muy deret ji nekk ci xol ba wala ñuy dagg yàpp yi muy nàcc jooju moom laab na bu ñu nee dana laabit day fekk rek mu bàyyikoo ci lu ñu rendi waaye su bàyyikoo ci luy dund moo xam nit la moo xam leneen la sobe lay doon su bàyyikoo ci loo xam ne middam sobe la it ba tey sobe lay doon kon bu ñu nee deret ja laab mooy ja nga xam ne la ko tax a génn sabab la nit ki dañoo xotti ak sadiit mbaa ñu dagg ak sadiit mu nàcc mbaa ñuy daggat yàpp wi muy nàcc mbaa deret ji nag ci xol ba day fekk loola doon lu ñu rendi waaye bu loolu nekkee luy dund deret jooju sobe la ca moom bu doonee lu medd it noonu deret jooju sobe lay doon ca moom masin ak masiyu madiyu muy ndox mu weex moom nga xam ne mooy génne ci sawukaayu góor gi bu fekkee day xalaat mbirum jote góor ak jigéen mbaam doon ko xool ba bànneexam ñëw ndox mu weex mooy génn tey loox moom du far day wuteeg wëdd yu ndax moom du far te wëdd yu day far ak mën yu yett yooyu sobe lañu doonte sax daa bàyyi ko ci lu dagana lekk te du lekk sobe it yett yi moom madiyu wadiyu mëniyu sobe lañ koy jàppe ci yoonu malik aw sadidun wala dëtti wànjar xayifun ak dëtti kese dëtti kese ak dëtti wànjar ñoo ci yemoo lu ci nekk sobe la tamliixu zaytunin ak xoromi zaytun bi najsi ci sobe ke zaytin niki ak diw musija gog jaxaseef na ko bin najisi ci sobe aw baydun wala ay nen kalax min niki aw yàpp nadiya waw ñore na bin najisi ci sobe moo xam day zaytoon li ñuy wax olive wala muy diw moo xam diw gu ñuy lekk la mbaa diw gu ñuy taal di ko niitoo ni ki pétrole ak lu diw diwee daal wala xeetu nen ak lu nen nene ak muy xeetu yàpp ak yàpp lu mu mën di doon su fekkee lañu ko xorome ba mu saf ca ba dugg ko bu wér a wér mbaa lañu ko jaxaseel mbaa bu dee nen lañu ko baxale mbaa bu dee yàpp lañu ko toggee day jëmmi sobe ni ki tubaab yi ni ñuy jëlee sàngara di ko toggee wala boog mu jaawale ko jël am saw wala deret toggi ko lam doon togg mbaa sax jëmm ja du jëmmi sobe waaye sobe dem na ca ba soppi ko bañ mën ko caa xàmmee ni ki ndox mi mu nurugee ca ba muy baxal nen ya mbaa bu muy togg yàpp wa day ndox moo xam ne sobe soppi woon na ko bañ mën ko caa xàmmee yu mel ni lii moo xam zaytoon baa moo xam nen yaa moo xam yàpp waa doomi aadama mënatu koo jëfandikoo mënisuta jël ndox mbaa saabu mbaa dara di ko ci raxas bañ jàpp ne laab na li ci des kay mooy jox ko ak jur mu lekk waaye doomi aadama mënu koo lekk mënu koo naan mënu koo jaay ndax faaw la ñuy jaay dañuy sart muy lu laab te lii moom laabut waaye nag nga seetlu li mu wax ne zeytoon ba dañu ko xorome loo xam ne sobe la ba mu dugg ko ba mënees su ko raxas ba mu set wala diw ga sobe dem ca jaxasoog moom mënees su ko tàggaleeg moom wala nen ya mbaa yàpp wa lañu ko toggee di jëmmi sobe wala muy loo xam ne sobe soppi na ko ñu togg ko nag ba mu ñor mbaa ba mu dugg ko bu wér-wér booba lay yàqu waaye bu fekkoon ne zaytoon ba wala nen ya wala yàpp wa dafa daanu ca sobe sa rek waaye toggiwuñ ko ko baxale ko ba mu dugg ca boo ko raxasee rek kon mu set mu daal di baax tey boo yoroon aw yàpp mbaa dara mu daanu ci sobe da ngay raxas ba mu set rek mu daal di baax ay nen noonu leneen noonu kafi taamin niki ci aw ñam maa ihin wi aju ruy aju ruy ru ay aw saarin wala aj rañaan fii jaamidin ci aji way aw xaasa wala mu xuus fii faxaarin ci boomar aw ñam woo xam ne dafa ruy mel ne am ñeex wala am soow wala lem goo xam dafa ruy moom daal mboolem xeet yi nga xam ñu koy lekk te mu def ndoxum liquide ruy bu ca sobe xasee dem lu mu tuuti tuuti ak lu ñam wa bari bari bari yàqu na ci jëfandikoo doomi aadama nga xam ne boo defoon biñuwaar ba mu fees ak njarum soow wala am ñeex lu ñu lekk daal nga seen tuuti sobe dem ca la muy tuuti tuuti yàq na ko ci jëfandikoo doomi aadama mënisu koo lekk mënisu koo jaay mënis na koo jox ak jur rekk nag mu lekk nga bañ koo jaawaleeg ndox ma ñu waxoon ne dañu koy sib mooy ndox moo xam ne dafa yem ci looy jàppe ndegam na ngay jàpp mbaa looy sangoo farata ndegam na ngay sangu farata tuuti sobe dem ca te mënisu koo xàmmee ñu waxoon ne soo amee meneen sib nañ ko soo amee meneen kenn sibu ko ñu ne woon sax bu dee ndox mu bari moom sobe dem ca waaye tuuti la mëni su ko jaa xàmmee te ndox ma daa bari woon moom si buñu ko sax loolu ndox ma ci wàllu jaamu yàlla bu ko jaawaleeg fii nu toll ci ñam ruy wa sobe dem ca lu mu tuuti tuuti rek yàq ko ak lu ñam wa bari bari bu fekkoon day ñam woo xam dafa dëgër nag mel ni nga ràcc cere rek janax dee ca kaw mbaa seneen sobe dal ca dañuy seet bu fekkee yàgg na ca ba yaakaar nañ ne war naa sar ci fépp fépp fépp ba tey moom it jox jur mu lekk rek lay mën waaye doomi aadama du ko mën a jëfandikoo faxaar boomar moom la ñu wax ban bi ñu lakk di ci defar njaq yi lépp ndab lu mel noonu nga xam ne boo ca sottee am ndox mbaa leneen loo xam ne daal liquide la dafa ruy du yem rekk ca kaw waaye day sar dugg ca biir boo seetloo njaq yi boo ci defee ndox da nga di gis muy seet ba nga gis tooyaay bi ci bitti lu mel noonu la ne buñ ca defee sobe soo xam ne dafa ruy mel ne deret mbaa saw moo xam ne sobe la mbaa sàngara ba mu xas dugg ca biir nga xam ne yemul ca kaw rek dafa dugg ca biir ndab lu mel noonu deesu ko mën a raxas ba mu set loo ko raxas raxas du tax mu set xanaa rek def ko ngunul ganaar mbaalu ko nuru daal lay man bu dee ndab lu dëgër nag loo xam ne moom loo ca mën di def ca kaw rek lay yem mel ne ñu liggéeye ko ci encassable wala ci weñ wala xeeti këll yooyu nga xam ne la nga cay def du jàll ci kaw rek la yem moom boo ci defee sobe itam mbaa sobe rëcc ci dem ca it da ngay raxas rek bu baax ba mu set bu aajowoo set lii saabu nga setlee ko saabu rek raxas ba mu set waaye ndab la dara si kucca bu setee rek bu setee rek mën nga koy jëfandikoo na nga ko bëggee ñam woo xam dafa dëgër bu ca sobe demee dañuy seet rek la ñu sikki sàkk ba xam laal na koom laalu ko ñu tonni loola sànni la ca des ñu lekk ko moom lay wax ci way wii naa wa in yëkkun dem dafa nekk moom sobe sa xal la di wàcc taxaaman aw ñam la nga ne ci aw ñam jaami dan wuji aji way ku lekkal maa la nga xam ne ba daa feeñ na bét furi ca laab ga watrax te nga wàcc maaxadaa lu dul loola ndegam ñam yi moom dafa dëgër mel ne cere mbaalu ko nuru te sobes yàggu ca ba ñu jàpp ne sar na ca fépp fépp kon bu ñu tonnee sobe sa ak la ko wër ak lañ defe ne rek sobe sa war na koo laal buñ ko tonnee dindi rek jox ak jur da ca des mënees na koo lekk mënees na koo jaay waaye boo koy jaay na da ngay leeral ka nga koy jaay ne ko nangamkat xewoon na ci ndax daam ñoo xam dañuy seexlu lu mel noonu wan fa na nga jariñ xayral aadami yi kudul doomi aadama wa masjidin ak jàkka bi maa ci la nga xam ne mujj sa sobee leef na ko lépp loo xam ne sobe da caa dem ci xeet yooyu ruuy ñu xeet liquide yi ban wax ne doomi aadama mënatu koo jëfandikoo mu ne mën ngaa seet boo ca mënee jariñu lu jëmul ci wàllu doomi aadama jëmul ci jàkka mën nga ko caa def niki bu dee lu mel ne xeetu pétrole sobe dem ca ba tey mën nga koo taal ci làmp def ko ca sa bitig wala sa néeg waaye boo ko def ci biir jàkka ja mën nga ko mën nga koo teg sax ca biti jàkka ja muy leeral biir jàkka ja waaye bul dugal jëmmi làmp ba ci biir jàkka ja ba tey bu dee diwu ñoro ba xeet yi diw ci des ñu mën koo diwi ab machine wala yooyu ba tey mën nga koo diw ca machine ba waaye daal doomi aadama moom du ko mën a jëfandikoo ci lekk mbaa naan jàkka itam war nañ ko ormaal ba dara bañ ko caa laal wa xarrim na nga araamal an na ji sa sobe sa xay nan ci jëmm maanaam dañuy teqale jëmmi sobe ak jëmmi loo xam ne du sobe sobe da caa dem rek ba soppi ko ñu àtte ko àtte sobe niki aw ñam sobe dem ca wala ak diw yi nga wees woon léegi loolu mooy mutana gis aji sobewu loolu dañ mayee boo ca mënee jariñu lu ajuwul ci sa bopp waa lu ajuwul ci doomi aadama ak jàkk nga jariñoo ko wàññiwul dara mu ne nag jëmmi sobe ci boppam moom duñ nangu kenn jariñoo ko ni ki buñ ne lii sàngara la wala lii deret la nga xam ne jëmm ca sobe la dis ko mën a jariñoo ci genn genn wet lu may nag jëmmi sobe si daañu may ñu def ko li ñuy wax ak tos maanaam sotti ko ca tool ya ndax suuf sa baax neex a bay deret ba tey waxoon nañ ne sobe la waaye nangu nañ ku mayee deret ndax loolu ji ci nekk ci buñ ko defut ak sàmm gi ñuy sàmm bakkan ci buñ ko defee moo tax moo tax wax ji gën a wóor mooy nangu nañu ku mayee deret li muy doon doon sobe waxaramoo araamal nañu istimaala naqdin jëfandikoo kee kal inaa lu mel ne napp maanaam dañuy bañ wuru sa xaalis liggéey ca ay ndab walay kopp walay kudd walay kaas yu yëpp dafa araam wuru sa xaalis dañuy bañ ku ci liggéey lu mel ne baraada wala xeeti kopp ak yi ma wax yëpp rek moom araam sax la def te ci góor a jigéen yëpp la araam moo tax ma ne walaw li unsa ak doonte ñeel jigéen la jigéen sax mayuñu ko mu wut ci yooyu wax di laalan ak doonte day xàll la doonte da cee wut njariñ doonte da nga koo def sax doo ko jëfandikoo waaye da nga koy luyee keneen tam ni ki ab jullit nga xam nga ni li araam na waaye da nga caa wut ndab mbaa baraada mbaa kopp mbaa yooyu di ko luyee yéefar yi nga xam ne araama lañ ko koy du ko tax a baax am nga ko am di ko luyee du ko tax a baax bu wax di laal aku xàllawu mooy aku wut njariñ wala ak nga ne nga ne ngir ak luyee sax waxati naa ngir ak koomlu boo ko wutoon sax ni duma ko jëfandikoo waaye daa koy denc sa alal ndax lu yàgg-yàgg suñu sët sax bu ñëwee mën koy jaay jariñoo ba tey du ko tax baax du teemu araam waxil yatar rijaali ak takkaayal góor ña bin naq day ni ci yaari keeya yaari kee yi mooy wurus ak xaalis góor goo xam ne mu kàllaf la araam na ci moom muy wut ci wurus wala ci xaalis dara lu ñuy takkaayoo moo xam dadi ak ceen wala lam wala ay bouton yu mbubbam wala leneen ci lu ñuy jëfandikoo rek mu sa xaalis daal da ngay njëkk a wax ne araamal nañ ci góor mu wut ca dara luy xeetu takkaay doo caa génne nag laa xaa tamal fiddati du caa génnu jaaroob xaalis dirhamayni tamu doon rekk ñaari dërëm ñaari dërëm yoon moo ko tax di wax muttaxidan tey aji bennoo maanaam nekk benn jaaro rekk aw mushafan wala ab kaamil aw sayfan wala jaasi gannaaw boo nee góor sañu tëgut lenn takkaayil wurus mbaa lenn takkaayil xaalis da nga wax ne ba mu des nag jaaroob xaalis boo xam ne suñu ko dee peese du ëpp ñaari dërëm yoon ñaari dërëm yoon nag matul juróom-benni ngaraam ñaar dërëm yoon boo ko dee seet ci ay ngaraam day nekk juróom-benni ngaraam yu manki juróomi mili ngaraam maanaam juróomi mili ngaraam moo manki ñaar dërëm yoon juróom-benni ngaraam kon mën nga ne ñaar dërëmi yoon mi ngi tolloog juróom benni ngaraam yu manki juróomi mili ngaraam kon xaalis ci la góor mën a wut ab jaaro te lu mu diis diis na toll noonu ñu wax mbaa mu yées ko waaye du sañ mu ëpp ko tayit muy benn jaaro maanaam bu ko neexee am ñaari jaaro mbaa ñett mbaa ñeent waaye du ko sañ a solandoo mën naa sol bee nag bu ëllëgee mu sol bee waaye duy nangu mu solandoo ñaari jaaro doonte doonte sax ñaari jaaro ya bu ci nekk daa woyof ba soo leen boolewul muy juróomi ngaraam kese yam ca it bu xësee limu rek ñu aaye ko te bu dee góor it noonu ñu ko waxee jaaroob xaalis lay sañ waaye sañut am jaaro boo xam ne lenn la day xaalis lenn la di wurus jaaroo leneen lu bokk te wurus ak xaalis nag dañ koy seet ba xam bu fekkee ne përëm la sib nañ ko moo xam góor la moo xam jigéen la sib nañu mu wut ci jaaroob përëm ndax yonante bi daa gisoon ku ko sol maanaam jaaroob përëm mu ne ko maali achammu fiika raihatal asnaam yow day xetuk xiram xetuk xiram moom ngay xeeñ moom laay yëg muy bàyyi ko ci yow ma di ko yëg ci sama bakkan mu may xeeñ daal ba tey jaaro weñ gu ñuul noonu la mel dañu ko sib moom itam moo xam góor la moo xam jigéen la ndax dañu ne waa sawara weñ gu ñuul la ñuy takkaayoo moom la ñuy waaje yonante bi daa gisoon ku ko sol moo jaar weñ gu ñuul mu ne ko maa lii ara fiika xiliyata ahlin naar ñu ne nag bu fekkee ne jaaro përëm ba wala jaaro weñ gu ñuul ga da nga ko takk rek ngir jàngoro joo koy faje ñu wax dana ko faj ñi ko buñ ne day wàcce tension tax mu takk ko moom dara nekku ca dafa mel ne nag léeg-léeg day jekki-jekki rek am lu xew mel ne gone yu góor yi xaw a dëgëraale di ay waxambaane di takk ay lam ci seen loxo ci jamono yi daa mel dafa xew waaye nañu xam ne rek lu araam la góor suñu ta takk ab lam góor benn jaaro xaalis rekk la sañ a takk ci kaw ni nu ko waxe léegi aw mushafan wala ab kaamil aw sayfan wala jaasi wa rabata sinnin ak takk bëñ maanaam yeew bëñ bu yang mutlaqan ak nu man di demee aw anfan wala bakkan ba tey góor may nañ ko ab kaamilam mu xoobe ko wurus wala xaalis juluñ nag mu xoob jëm bi mbind ma ci boppam ni mu ko waxee ci saraa bi ne wa amma kitaabatu awaa'ili ajzaa'i alqur'aan aw asbaacihi aw acshaarihi aw axmaasihi bimaa'i aldahabi aw alfidda fa makruuha لأن ذلك يشغل القارئ عن التدبر في معاني القرآن لا أنبو كامل با مام لاي خوبه ورسك خالص غير ماغال القرآن جا غير دوليكو سام آركو دي di def njël beenu isib bu ne mu bind ko ci daayi wurus ba xaalis wala topp sunun yi wala robon yi wala nisif yi ak yu demee noonu